بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أن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 خلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنة بن سنتي الله جلتي رنتان عليه الصلاة والسلام نيوان في كتاب السلام والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري في سنجة أبي ويسو defon nañ ak bumbeustal ci li nga xamante ne moom moo aju woon ci kitaabu salam mooy njaay mi nga xamante ne xeetu njaay la goo xam ne dangay daal di joxe eh, njëg gi waaye dañuy yéexe li nga xam ne moom mooy eh, eh, li ñuy jaay mooy marchandise bi loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu salam gisoon na li nga xam ne moom mooy gis-gis yi ci borom xam-xam yi amoon rahmatullahi alayhim gisoon nañ ne dafa nekk loo xam ne dafa sax ci alquran ak sunna ak ijmaa borom xam-xam yi rahmatullahi ala al gisoon nañ tam li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci wàllu ay keno yi nga xam ne moom la amee waaye tamit gisoon nañ ci yenn ci ay masala yoo xamante ne daf ci doon wër-wër loo keno bu ci nekk li nga xam ne moom mooy li li ci aju loolu tamit gisoon nañ ko ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu woon minna gisoon nañ tamit masala yi nga xamante ne ñoom ñu la nurul te fekk ñu benn gisoon nañ tamit masala yi nga xamante ne eh, ñoom ñooy yi nga xam ne ñoom la nural te ñu xawal bokk ay atte ci mas mooy li nga xam ne moom mooy du demee ne ko masalatul istisna nga xamante ne moom mooy ci artisan bi ak yi nga xam ne ñoom ñoo ciy wër-wër doo comme du demee ne ko at tadwir ak yeneen yooyu yëpp gisoon nañ ko ci suñ jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu daal di ñu war a tàmbali ci li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullah daal di indi ci buntu di ci wax mu ne kitaabu salaam kitaabun téere ngi nii assalam boo xamante ne day wax ci njaay moom nga xamante ne mooy njaayum jiital maanaam jiital pay gi mu daal di wax baabu salami fii kay lim baabu bunt bi nga xamante ne dafay wax ci assayl assalam maanaam ak euh, jiital fii maanaam euh, jiital pay mooy njaay moom nga xamante ne fii kay lim ci njëkk li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam ci ci ci kayl mooy ak nattuwaay boo xam ne maalum lu ñu xam la loolu tamit mu nekk loo xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko nose ngir leeral ne dafa bokk ci li nga xamante ne moom kay moom boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci rahmatullahi alayhim moom mooy ne su fekkente ne lépp loo xamante ne lu ñuy natt la dañ ko war a jaay maanaam ñu jaayee ko loo xamante ne jaayuk natt lay doon comme masalan tey bu fekkente ne dafa am loo xamante ne eh, da nga dañoo dem ci benn réew ci ci am réew réew moomu masalan gerte ñoom buñ koy jaay natt lañ koy jaayee bu boobaa boo ci def assalam tamit dañ koy jaayee ci natt naka noonu bu fekkente ne euh, lu ñuy jaayee la ci te te ñu war koo euh, tamit euh, mandaxe mooy ñu koy peese bu boobaa tamit comme masalan ñu nekk dugub kat di réew sàngam moom dañ koy peese loolu bu boobaa tamit njaay bi day dekk loo xamante ne dañ koy peese ci xadis bi nga xamante ne moom la ñu ñëw léegi inchaa allahu ta'ala dinañ ci leeral yeneeni xeeti masala yoo xamante ne dañ ciy wor wërloo ci biir wax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا عمرو بن زرارة موي عمرو بن زرارة ثم موي أبو عمرو آه، آه، آه، واقد ابن واقد الكلابي رقم تلم تمن نكون أبو محمد موي عمرو بن أبي موي عم زرارة موي أبو عمرو maanaam mooy Zuraarat ibn Waaqid moo tax moom muy muy Amr kon maanaam baayam moom lañ koy dàqantele mooy mooy Zuraara maanaam muy amr ibn zurarata alkulabi moom mooy abu muhammad mooy dàqantaram di bokk ci waa naysaburi rahmatullahi alayhim moom mu bokk ci fukkeelu tabaqa bi gane àdduna téeméer at ak juróom benn fukk ginnaaw gàddaay yenente bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna ñaar téeméer at ak fanweer ak juróom ñett ginnaaw gàddaayu yenente bi alayhi salaatu wassalaam imam al buxaari rahimahullahu ta'ala fukki ak ñeenti xadis la ko amal te yooyu gisoon nañ leen ba fii bii ñu nekk nii moom mooy juróomeelu euh, xadis bi nga xamante ne moom la imam bi am rahimahullah imam muslim amal na ko juróom-ñetti xadis imam an-Nasa'i te fukk ak juróom-ñetti xadis la ko amal ci maanaam euh, muy euh, xadis yi nga xamante ne moom la am ci waa asxaabu kutubu sitta yëpp moom ñii rek ñoom ñooy ñi solo ci moom muy imam al-Bukhari imam muslim ak imam an-Nasa'i amma nga xamne mom moy imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak Ibn ñom ñep ken solo solowul ci ñom rahimallahu jamii mu qala akhbarana Isma'il ibn Ulayya muy Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom bok ci Asadu Xuzayma ci mawa ci mawali la ñi nga dañ Abu bisr mom moy dakantalam de al al Basri al Bazzaz rahimahullahu ta'ala Euh, waaye cosaanam kuufa la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ñu koy wax ol maanaam ibnu ulayya te mu gën a maanaam mu siiwee ci ibnu ulayya waaye ibrahim moom mooy baayam ndax ulayya mooy yaayam yaayam nekkoon sëriñ ci waa basara rahmatullahi alayhim ba nekkoon ku fa siiwoon lool looloo tax ñu koy dàqante la yaayam kon moom mi ngi bokk ci juróom-ñetteelu euh, euh, tabaqa bi rahimahullahu ta'ala Euh, mu dëkkoon Basra ginnaaw ga mu dëkk Baghdad mi ngi gane àdduna téeméer ak fukki at ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna téeméer ak juróom ñeent fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Baghdad euh, rahimahullahu ta'ala mun a qaala axbarana ibnu abi najihin te moom mooy abdullahi ibnu yasaar as-saqafi euh, yasaar moom moo tudd abu najih maanaam moom muy abu yasaar al-makki mooy daqantalam gën a siiwee ci ibnu abi najih bokk ci juróom benneelu tabaqa bi rahimahullahu taala nekkoon waa makka mi ngi génn àdduna fanweer at ak ñett fan téeméeri at ak fanweer ak ñett ak benn bokk téeméer ak fanweer ak benn ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an abdullahi ibnu kathir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuté ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñom ñum ñoy ñu ne ñu ne kan la bu fekkente na Abdullah ibn kasir ibn al-Muttalib la koku nak mom imam al-Bukhari rahimahullah mom hadith bi rek lako amal nak nonu tamit imam Muslim amal nako benen hadith ñom bu boba ci téere yi nga xamantene mom moy mom moom bii rek la ci am waye nak li nga xamne mom moy mooy li gën siiw mom moy na Abdullah ibn kasir bi mom moy al-Qari moy abu abu ma'bar al-Qari mom mi nga xamantene mom moy imaamu Makka boobu nga xamante ne moom lañu naan ibnu Kathir ci borom qurra us-saba yi maanaam juróom-ñaari jàngkatu alquran yu màgg yi am na ci buñu naan lii euh, qiraat ibnu Kathir la maanaam ibnu Kathir boobu moom la ñuy wax ni moom moo nekk fii moom tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala téere bii rek maanaam euh, xadis bi rek la ko indil maanaam moom mën na répété wu mais bii rek la am ci saxiix ba saxiix bi jeex mom tamit benen ci sahih bi bu kenen fenen rek moy ci moy abu najud ci qura qura mom rek tamit mom mo ci am mais sinon mom teer bi hadith bi rek la am ci sahih bi rahimahullahu taala naka non ci ci ci kutubu sitta maanaam hadith bi rek la ci am rahimahullahu taala mu nek kon nga xamantene mom moy qari bu mag bobu rahimahullahu nekkon Makka nek génn aduna téméré la ak ñaar fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne an abil minhaal muy taabi'i bu mag boobu rahimahullahu taala muy abdurrahim ibnu mutaim ibnu abdullah al bunaani maanaam moom rahimahullah muy abul minhaal al bunaani al anazi di waa basara rahimahullahu taala Euh, moom euh, na naka noonu ginnaaw gi mu dëkkoon Kufa euh, naka noonu mu nekkoon tamit maanaam Makka ci mujjantalu dundam moom ci ñetteelu tabaqa bi la bokk rahimahullahu ta'ala génn àdduna téeméer ak juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam an ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ta'ala anhuma annahu qaal moom mu ne qadima ñëw na rasulullah ndawal yàlla li صلى الله عليه وسلم دكسنا المدينة مدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والناس فك نيني آه، يسلفونا ني جاي جاي ميغا خامتاني موم لاني واخ السلف مانام موي جيتال ميغا خامتاني موم لاني جيتال فايغي وايي آه، ليغا خامتاني مو غيسون نان تي بوروم تي تي جوتاي بي ويسو مانام لي ليغا خامتاني موم موي ني السلف موم اك سلام بن لا وايي لغه نيغا خامتاني نيوم ني اهل الحجاز نيوم ني واخ السلف maanaam ñi ci des di wax asalaam maanaam gisoon nañ ko mu ne fi samar maanaam jiital gi ñu koy jiital fi samar maanaam ci euh, meññeef euh, al ama euh, at wala ama yi ak ñaari at maanaam moom mooy wax ne maanaam nga xamante ne dañuy jiital njëg maanaam meññeef gi maanaam ci at ak wala jàpp ñaari at aw wala boo qaala mu ne aamay ni ñaari at aw salaasa wala ñetti at shakka ismail mu ne ismail ibnu ulayya Euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom mooy ki nga xamante ne moom moo indi moo am sikki sàkk boobu waaye euh, sikki sàkk boobu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci xadis bii di ñëw al imam ibnu uyayna rahimahullahu ta'ala moom leeral na ko dinañ ci ñëw inchaa allahu ta'ala moom mu ne kon nag fa qaala mu ne man man sallafa képp koo xamante ne da jiital ci li ngay jaay maanaam booy booy booy li ngay li ngay jënd maanaam li ngay ngay jaay euh, tàndarma masalan euh, fii tamrin ci tàndarma am na ci beneen riwaaya fii shay'in ci lu mu mën a doon maanaam fal yuslif na daal di jiital njëg gi maanaam bu boobaa fii kaylin ci euh, ak ak ak ak natt maalumin bu ñu xam wa waznin ak mandaxe maalumin bu ñu xam maanaam lii moom tamit moom mooy wane ne li nga xamante ne moom mooy as salaf dañ koy def ci njëg gu ñu xam waaye dañ koy def ta maanaam dañ koy def ci euh, maanaam li nga xam ne moom lañ gisoon ne mooy rasu maal rasu rasu maal salam maanaam mooy euh, li nga xam ne moom mooy capitalu salam bi mooy li nga xam ne moom ngay jëkk di ko di ko yëkkati di ko joxe moom mooy euh, li ñu tuddee muy muy saman mooy njëg loolu noonu lañ koy tuddee bu dee ci asalaam comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu maanaam bu boobaa bu fekkente ne da nga ko joxe ko donc dafa war a nekk ci loo xamante ne lu ñuy natt la mais lu ñu xam wala bokk mu nekk lu ñuy lu ñuy màndaxe di ko peese mais lu ñu xam maanaam loolu faw loolu mu daal ci nekk te lii bokk na ci li nga xamante ne moom moo tax zahiri rahmatullahi alayhim ku mel ne al imam ibn hazm rahimahullah jàpp ne euh, salaf wala muy bay salam mënta nekk lu dul ci loo xamante ne lu ñu euh, lu ñuy natt la wala bokk lu ñuy peese maanaam lu ñuy màndaxe waye lolou wouté na wax ñi nga xamné ñoy jamaahirul ulamaa rahmatullahi alayhim te bok ci seen biir ñi nga xamante ne ñom ñoy fuqaha ul mazahibul arbaa yi muy ñeenti ngir yi ñoom muy mazhab xanafiya ak maliki ak shafii ak hanabilay yi rahmatullahi alayhim ñom dañoo wouté ñom ñom jàpp nañ ni li nga xamante ne moom mooy mazruaat ak li nga xamné mom moy ma'dudati yoy yep yooyu yëpp dañoo mën nañ leena euh mën nañ leena jaay manam moy yi nga xamante ne dañ leen di mën di natt maanaam nga xam ne ay ay dañ koy mën a natt waaye tamit yi nga xamante ni dañ leen di mën di lim yooyu tamit mënef na cee génn maanaam mënef na cee nattee maanaam mënef na koo defee bay salam li nga xamante ne moom mooy li ci am solo rek moom mooy ñu xam lan la ba pare ñu nekk loo xamante ne maanaam mu nekk loo xamante ne maalumu sifa la maanaam mooy melo bi faaw dañ ko war a xam ci suñ jotaay bi weesu leeraloon nañ yi nga xamante ne ñoom ñooy eh, charte ci benn bu ci nekk ci yi maanaam taxawoon nañ ci say charte loolu moom moo tax kon du jar ñu ci dellu siwaat euh, ci suñu jotaay yi nga xamante ne moom la ñu ne kon li nga xamante ne moom mooy li ci am solo moom mooy ne faw kon euh, mu nekk li nga xam ne wuute daal moom la ñuy indi rek incha allahu taala ci yi nga xamante ne xëy na jar nañu taxaw ci tuuti maanaam loolu rek la ñuy indi waaye euh, suñu jotaay bi weesu daanaka taxawoon nañ wër-wërloo nañ ci masala yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci assalam maanaam kon lii nga xamante ne moom la loolu beneen bi ci des moom mooy lu ñuy nat maanaam lu ñuy peese maanaam lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy wàññi maanaam waaye nag yooyu nga xamante ne dañuy waññi dañ leen di wàññi dafa am ay charte yoo xamante ne faw mu am ci ngir mu mën a baax moom mooy faw mu nekk loo xamante ne euh, seeni melo dañoo nuroo maanaam muy nekk ay modèle yu nuroo waaye tey bu fekkente ne ay xar la masalan tey du mën a maanaam nga xamante ne ñoom kenn sax ak nuroowul ak sa morom wala ay bëy wala yenn yoo xamante ne xëy na masalan ñu naan ay xaal la bu fekkente ne par benn xaal la loolu yu mel noonu duñ ko mën a def salaf su fekkente ne nekkul loo xamante ne euh, dañ ko ma ba mu des ñu ñu natt ko masalan tey buñ ne camion wu nangami ton bu xaal maanaam par exemple loolu leer na voilà wala benn xaal ñu xam ne benn bii la ñuy faral di jëfandikoo fii ci dëkk bi ak yu mel noonu loolu dinañ ko mën a xam waaye bu fekk dinañ ko mën a jaay ci salaf waaye su fekkente ne mbir la moo xamante ne Euh, demeewut noonu maanaam euh, munu munuma la wax ne la dama dama lay lebal benn xaal euh, maanaam damay jënd ci yow xaal pour déwén wala pour d'ici deux un mois deux mois parce que lu tax parce que xaal boobu même bu dee dañ koy wàññi ma ne la ñett juróomi xaal maanaam lu tax du mën a baax parce que xaal yi dañoo nuróowul moo tax maanaam kon loolu alors que tey bu fekkente ne dugub la ak ceeb ñoom ñooy nuróo maanaam pepp yi seenu tàqalee koo tàqalikoo gi tax koo am solo maanaam boo tax mais boobu li nga xam ne moom mooy comme niñ ko gise woon

ak yi ak li nga xamantene mom mo moo ci wërwërloo mu ne wax hadathana imam al-Bukhari rahimahullah taala dan hadathana Muhammad leralul kan la waaye Muhammad ibn salam al-Bikandi la li nga xamantene comme li nga xamne non noonu la ko al-Kalabazi manam non la nekké ko xamantene daf ci dogo al-Hafizul Ayni ak ak ak ñeneen ñu xamantene ne ci surraaxi tamit noonu lañ ci dogo ndax lutax ndax mom mi dafa solo ci Isma'il ibn Ulayya rahimahullah taala mun qala akhbarana Ismaïl muy ibnu Ulayya an ibnu Abi Najih bihaada ci lii mu ne waaye lim ci wax mooy wa fii kull wa fii kaylin ma'lumin wa waznin ma'lum maanaam moom moo fii kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin loolu tamit la wax maanaam ñoom ñoo nuroo ci maanaa bi nga xamante ne moom la wax maanaam li li mu li mu bëgg a wax fii moom mooy ñoom ci seen xadis bi waxuñu ci ilaa ajalin ma'lum maanaam mooy beneen xadis bi ni nga xamante ne non la ñëwé comme ngir léral ne Ismaïl ibn Ulayya rahimahullahu taala ni la solo wé hadith bi moom rahimahullah hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat ci xadis bii di ñëw maanaam euh, muy deux mille deux cent quarante ak euh, bi ci ak deux mille deux cent cinquante trois muslim indi na ko mille six cent quatre ñaari yoon imaam abu dawud indi na ko xadis trois mille quatre cent soixante trois imaam at-tirmidhi na ko mille trois cent onze imaam an-nasa'i na ko quatre mille xadis quatre mille six cent seize imaam ibn ko xadis deux mille deux cent quatre vingt Euh, a noonu imam ahmad indi na ko xadis 1868 1936 2548 ak 3370 kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu ljamia mu ne baabu salami fii wazni maalum baabu bunte ngi nii boo xam ne day wax ci assalam muy jaay njaayum salam fii wasnin maalum maanaam ci euh, maanaam luñ mandaxe wasnin mandaxe boo xam ne maalumin nunu xam la manam gisoon nañ ni ci walu gogou euh muy muy muy salam gi kon tamit dañ koy mën def ci lo xamantene dañ koy màndaxe muna qala qaala bil isnaadil fi awal kitab li xaddasana sadaqat mom moy sadaqat ibn al fadl abul fadl al marwazi rahimahu allah taala bokk ci fukkeelu tabaqa bi génn àdduna ñaar téeméer ak ñaar fuk ak ñett ginnaaw gàddaay yenente bi alayhi salatu wassalam moom rahimahullahu taala mu bokk ci imam yu màgg yi dégg ci siqaat yi tamit bokk ci afraadul Buxaari imam al Buxaari rahimahullahu taala moom rek moom moo solo ay xadisam ci ashaabu kutubu sitta moom mi ngi am maanaam bii ñu nekk nii ci xadis bii mooy juróom-ñetteelu xadis ci imam sadaqa bi ci fanweer ak juróom-ñeent yoo xamante ne moom la am ci saxiix bi yëpp ba mu jeex mu ne qaala axbarana Uyayna mooy Sufyaan imam bu màgg boobu rahimahullahu taala Sufyan ibn Uyaynata ibn Maymun al-Hilali mawlaahum rahimahullahu ta'ala moom mun a qaala axbarana ibn abi najih moom gis nañ ko léegi an Abdullah ibn Kathir moom gis nañ ko al-Qari al-Muqri an Abil Minhal rahimahullah an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy kon xadis bi nga xamante ne kon ñoom ñii mooy mooy ibnu Uyayna ak ibnu Ulayya ñoom ñaar ñoom ñii kenn ku ci nekk yaa ko jëlee ci ibn abi najih kon mu nekk madaarul xadis euh, mu ne an ibn abbas radiyallahu taala anhuma annahu qaala mu ne qadima ñëw na nabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam al madina wahum yaslufuuna te ñuy def njaayum salaf boobu muy di njaayum salam bi tamri ci tàndarma as-sanatayni ñaari at wa salaasa ak ñett maanaam nga xam ne dañuy dem ba ñetti at maanaam kon bu boobaa sikki sàkka nekkatu ci fa qaala mu ne man aslafa yenent bi sallallahu alayhi wa ne man aslafa képp koo xamante ne da ngay jaay njaayum sa maanaam da ngay jiital sam pay fii shay'in ci lum mën a doon maanaam kon riwaaya bi yamatalu ko ci tàndarma waaye fii shay'in ci lum mën a doon mu ne fa fii na nekk ci kaylin ak maanaam euh, natt boo xam ne maalumin bu ñu xam la wa waznin ak mandaxe boo xam ne maalumin bu ñu xam la maanaam lii dey dëgëral li nga xam ne moom mooy wax ko mel ni al imam ibn Hazm ak zahiri yi rahmatullahi alayhim waye nak bu boba li nga xamantene mom lañ leen di wax moy ne dañ leen doon wax ne bobu lii yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñam doon waxal seenu njaay ci loolu rek la demee woon mooy ci wasn ak kay manam loolu la ba tax alquran sax bo xole dañ naan wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna mun waylun lil mutaffifiina alladhiina iza kalu ala an nas yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna manam nga gis ne kon kaylu ak wasnu rek la tudd muy mandaxe ak natt yooyu rek la tudd ngir ne foofu ñoom jamono jooju ñoom loolu ci mbir yi nga xamante ne moom lañ daan soxla di ci def salaf lu ci bëri mooy di ci jaay njaay mu mel nii dafa fekkoon ne lu ñuy natt lay doon wala boog mu nekk lu ñuy lu ñuy peese loolu moom moo tax kon loolu moom mooy euh, li nga xam ne moom lañ koy tontu bu boobaa day daal di nekk loo xam ne mafhumul laqab lay daal di doon te loolu bu day nekk loo xam ne kenn du ko bàyyi xel من قال حدثنا علي مموي الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي رحمه الله تعالى حية الوادي أبو الحسن البصري من قال حدثنا سفيان مي ابن عيينة manam hatta batay buñu gisul won ibnu ayyana bi ci kaw ba xamne sufyan bobu la ndax ali ibn al-madini مومت سفيان ابن عيينة لصلاة رحمه الله عن ابن أبي نجيح مومنت دلالمنا عن عبد الله ابن كثير عن أبي, أبي المنهال أنه قال من سامعتو نعم بيكسنة فوف مولير أن أبو المنهال دفع ديج موي تي كي حملتنا مموي manam ci euh euh sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma mun yaqul qul mun mune kon mune mune qadima nabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw wa qala mune fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum kom ne kon ibnu Uyayna yi solo yep lol la manam mom yi solo dafa ni ndax bo xolé riwaya bu njëkk bi dafa ni fal yuslif fi kaylin ma'lumin ila ajalin ma'lumin nat manam ci luñu nat lo xamantene luñu xam la manam ila ajalin ma'lumin ci dexele buñu xam fi tamit mu daal indi li nga xamantene mom moy mooy te riwaaye boobu sadaqa mom non la ko solo we waye tuddul won fi wasnin ma'lum manam fi kaylin ma'lum rek la tuddu waye riwaya bi Ali ibn al-Madini solo ci Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala mom mo leral ne fi kaylin ma'lum wa wasnin ma'lum ila ajalin ma'lum ci kaw lolu ci lañu xamé ni ibn abi najih mom ni mu we hadith bi mom ibn abi najih limu wax mom limu solo te jëla ko ci abdullah ibn kathir rahimahullah mom moy fi kayl ma'lum wa wazn ma'lum ila ajal ma'lum manam imam al-Bukhari li la démontré manam li la leral indi riwaayaat yi li ni wute wute ñe kenn ku ci nek da nga def riwaya bil ma'na manam indi ben manam ba'd al-alfaz al hadith manam riwaya ba'd al-alfaz al hadith nga def da nga solo lenn ci baati xadis yi waye nak hadith bi nii la ko sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma digg woon ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye tamit nii la nga xamante ne noonu la ko abul minhal sol abul minhal solowee ci moom noonu la ko abdullah ibn kasir solowee ci moom noonu la ko ibnu abi najih nettalee woon rahmatullahi ala al jami' maanaam kon loolu la léegi nag fii tamit mu nekk loo xamante ne day leeral ne faw day am dëxale loolu tamit mu am ay masala yoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk te boroom xam-xam yu wuute ci rahmatullahi alayhim bokk na ci masalan ndax faw daa war a am euh, maanaam ndax li ñu tuddee as salamu xaalan ndax loolu mën naa ne moom mooy nga ne damay def salam mais léegi léegi lay doon maanaam mooy dama lay jox léegi mais dañuy def bay salam quoi mais affaire bi da nga koy indi léegi tey maanaam léegi nii nga ma koy jox ma jox la xaalis bi bu boobaa loolu du du loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim ci ñoom ñooy xanafiye yi ak maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo bañ amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy shafi'iye ñoom dañ koo nangu ñoom dañoo jàpp ne loolu mën naa ne ndax dañu ne bu fekkente ne ajal bi maanaam dëxale gi daf mën naa sori c'est loolu dañ mën a nangu waxuma laa nag loo xamante ne dafa teew maanaam kon wala boog dafa mën a nekk nii nii nii loolu moo moo tax ñoom ñu wuute ci masala boobu waaye euh, li nga xamante ne amaan na mooy li gën a dëgër wallahu alam moom mooy ne dëgg-dëgg loolu mënta tane maanaam faw mu am euh, diir bu ndaw te loolu moom moo ñu yóbbu ci beneen masala tamit moom mooy aqallul ajal maanaam diir bi nga xamante ne moom mooy bu gën a néew ci tey bu fekkente ne dama waroon a jaay bayu salam maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom la borom xam-xam yi tamit wax rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñooy mazhabu xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ cee am ay wax yu wuute bokk na ci wax yi ñuy wax moom mooy euh, genn wàllu bëccëg maanaam mooy tey bu fekkente ne maanaam faw maanaam genn wàllu bës maanaam nisfu yawmin mooy kon ab bëccëg wala ab guddi maanaam fokk mu nekk loo xamante ne euh, mën na nekk loolu mais sinon parce que sinon du am sens ñuy def salaat loolu benn la ñaa euh, euh, am am ah, loolu mu am ñi nga xamante ne dañ ni déedéet faw mu nekk a ayyaam maanaam ñetti fan loolu nag wax la joo xamante ne bu siiw la ci ñoom waaye li nga xamante ne moom la Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani rahimahullahu taala dëgëral te nootal ko moom mooy weer moom dafa jàpp ne faaw mu mat weer lu mu néew néew salam mënoo koo def ci lu gën a néew weer te loolu tamit moom la al imam euh, al Kasaani dëgëral ci Badaa'i as-Sanaa'i maanaam ngir ne dañ wax ne ñoom bu fekkente ne weer moom mooy lu gën a néew lu tax mu nekk lu gën a néew weer weer gën a néew ñu ne parce que ci la nit ki weer day nekk loo xam te nit ki mën na ci liggéey mbir mi te dañ koy bàyyi xel ci masalan euh, nit ki bi am alalam par weer maanaam ak yu demee noonu maanaam nga xamante ne kon nit ki lam ci war a toppatoo war na koo mën a toppatoo ci diggante boobu lool moom moo tax tamit moom mooy dëxale bi gën a néew wax jooju nag nga xam ne moom la wax loolu ci mooy mazhabu xanaabila rahmatullahi alayhim ñoom tamit dañ ni lim gën a néew néew mooy mu nekk weer amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy mazhabu euh, maliki ci rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo natte rek ci euh, nan la marché bi mel ñoom nu marché bi mel rek la ñuy bàyyi xel maanaam moom mooy tey bu fekkente ne loolu moom moo tax nga gis ñenn ñi kom euh, ku mel ne al imam ibnul qasim euh, rahimahullahu taala natt ko ci euh, fukki fan ak juróom maanaam ñenn ñi ñeneen natt ko ci loo xamante ne gën na rëy loolu ñenn ñi natt ko ci lu gën a tuuti loolu ñenn ñi natt ko ci weer ak yu mel noonu te loolu li nga xamante ne moom mooy li ko waral mooy ku mel ne al imam ibnu wahb masalan rahimahullahu taala moom dafa ni sax non mbir mi jarul sax léeg-léeg muy mat bës maanaam mbir mi day aju rek ci marché bi maanaam te loolu li ko li tax nag ñoom ñu gisee noonu euh, moom mooy ne ñoom dañu ne euh, euh, ndax parce que loolu tey buñ ko indi ci suñu jamono dañ naan tey bu fekkente ne concessionnaire bi dama bëgg commander ci moom ab oto ne ko dama koy def bay o salaf manam auto bi ñaata auto bi model bi la mu indi ko caractéristique yi nga xamantene mom la bëgg mom tamit wala mom mu proposer mako ko ma xol ne ko way effectivement parce que da lay catalogue bi masalan wala kuy jaay ay affaire wan la catalogue bi ne la wala man damay jaay li marchandise bi lay jaay bon bi dama koy indi damay dem dubai indi bi wala damay def li damay ah mën na la amal bi et cetera bu boba nga ne ah waaw li de kon xaram ma jox jox la léegi ñaata la nga daal di wax prix ma daal di lay jox wala boog nga ne nga ne maanaam ay camion lay jaay voilà man damay dem Belgique damay dem Allemagne damay wut ay camion léegi nag camion yooyu nga xam ne moom laay wut yow boo bëgg modèle bi nga bëgg moom danga ma koy wax nga jox ma alal ji ma daal di la koy indil bis sangam loolu faw mu leer mooy ilaa ajalin ma'lumin faw bis bi leer maanaam le 15 mars 2023 par exemple ok leer na le 15 mars 2023 dama war a indi benn maanaam kon loolu fokk mu nekk loo xam te lu la loolu nag tey bu fekkente ne catalogue bi dama ko dama dama ko ubbi kon ma daal di xam ne ah kon kat lii la ah bu boobaa ñu daal di xam selon nag léegi mbir mi ñaata temps lay def ci marché bi selon dëkk bi ma ne selon et cetera maanaam mbir mi day mën a aju ci loolu kon mën naa bañ a natt te mbir mi ci ci ci ci waxtu wi léegi nag gisoon nañ quand ba tey ne bay o salam bokkut ak bay o maalaayam liko maanaam ba tey wuute woon loolu gisoon nañ ko ci suñ jotaay bi weesu te leeraloon nañ ko te borom xam-xam yëpp rahmatullah dañ leen a tàqale maanaam ne du benn maanaam li am ci marché yi nga xam ne damay ñëw fekk benn boutique fee mooy jaay nangam wala ñenn ñi ko def ci internet dama fàtte tur bi voilà dropshipping maanaam boobu yooyu noonu loolu moom dafa xaram mais su fekkente ne loo xamante ne yow da ngay da koy di dem di ko wuti ji te nii la nga xam ne lii la loolu bu boobaa dinañ ñëw sax incha allahu taala ci sax ndax loo amagul wala boog loo xam ne amul jamono jii maanaam ndax mën nañ koo def waaw wala ak wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim waaye daal fii li nga xam ne daal moom la ñu euh, mën a gis rek moom mooy ne loolu la maanaam ammaa ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom tamit ci bés lañ ko natt wala ci ñetti bés kon loolu moom mooy wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim amaan na nag bi ci gën a wér inchaa allahu taala moom mooy waxu fuqaha u maliki yi alayhim ni nga xamantene non noonu lañ dëxalee mbir mi rek selon jamono ji selon place bi selon marché bi manam naka la marché bi di di doxé ah, ak naka lay amé tay masalan mënuma def lo xamantene ma parce que bokku na ci charte li nga xamantene mom moy lu al muslamu fihi ah comme niñ ko gise won ci li nga xamantene ci la salam gi di dem mom moy moy marchandise bi manam daf ci bokkon ci charte yi mom moy ne mu mu euh, waxtu wañuy laat né nañ ko indi waxtu woowoo mu possible mu mën a ne masalan bu fekkente ne euh, jamonoy mango ak jamonoy orange bokkuñu euh, tey bu fekkente ne damaa bëgg jënd ci yow ay toni orange wala toni mango maanaam masalan tey bu fekkente ne mango day ñor euh, ay ay côté bu bu bu bi day génn maanaam ci jamono jooju lay ñor léegi man tey ma bëgg koo dem ma bëgg ko laaj été bi loolu du mën a ne maanaam il faut ma laaj ko jamono joo xam ne maanaam possible na mu am maanaam loolu ci dafa bokk ci condition bay salam voilà te tey loolu tamit euh, kon marchandise bi day dépendre ci loolu te loolu bu boobaa day tax ba euh, aqallul ajal maanaam day mën di yéeg ak a wàcc selon marché bi ak selon marchandise bi ñuy laaj ak selon naka la demee parce que loolu moom mënu cee ñàkk euh, gis nga kon xadis bi gisoon nañ ko léegi ci deux cent deux mille deux cent trente neuf dinañ ko indiwaat imaam bu Buxaari dina ko indiwaat deux mille deux cent cinquante trois ñu gis ni hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñep solo nañ ko rahimallahu al-jamii ne wa qaala bil isnaadil muttasil fi al kitab li hadathana abu al walid te moom mooy at-Tayaalisi moy hisham ibn abd al Malik al bahili rahimahullahu ta'ala bi sëriñ imam al-Bukhari ak imam Abu daud comme niñ ko gise won waaye ay xadisam nek ci kutubu sita mun qala hadathana shubat moy ibn al-Hajjaaj mu an ibn abil mujalid moom mooy abdullah ibn abil mujalid al kufi rahimahullahu ta'ala moom si juróomul tabaqa bi la bokk moom tam dafa bokk ci maanaam afradul buxaari yi subhaanallah maanaam nga gis fi mu positionné woo ci ci ci ci ci ci càllale gi ci sanad bi waaye terewul imam al buxaari yi rek rahimahullahu taala moom moo soloo xadisam mu ne xa wax mu ne wa xaddasanaa yaxya muy yaxya ibn musa euh, ibn abdi rabbihi alxadaani euh, rahimahullahu taala mu gën a siiwee ci xatt muy wala ñu naan ko ibnu xatt abu zakariya rahimahullahu taala al-Bulxi euh, moom tamit gisoon nañ ko bokk ci fukkeelu tabaqa bi génn àdduna deux cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk tamit ci sëriñ imam al-Buxaari yi mu ne qaala haddathana Waki' imam bu mag boobu imam ibnu Waki' ibnu al-Jarrah ibnu Malih al-Kufi rahimahullahu ta'ala Abu Sufyan di daa xam talam maanaam mu gën a siiwee ci Waki' ar-Ru'asi maanaam Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Kufi dégg nga summa al-Asbahani summa an-Naysaburi al-A'war bokk ci juróom-ñeenteelu tabaqa bi kon mi ngi gane àdduna téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn àdduna téeméeri at ak juróom-ñeent fukk ak juróom ginnaw gadda yonent bi alayhi salatu wassalaam ay xadisam nekk ci kutubu sitta an Shu'ba moy ibn al-Hajjaj an Muhammad ibn Abil Mujarid mom lañ gis legi muna wa hadathana Hafs ibn Umar kon ñet cyalla legi manam kon cyalla li nga xamne ci Abul Walid lako jele mu jele ko ci shoba mu jele ko ci ibn Abil Mujarid ñaarel bi mom moy Yahya ci lako jele mu Yahya ibn Musa mu jële ko ci Waki' ibn al-Jarrah mu jële ko ci Shu'ba mu jële ko ci Muhammad ibn Abil Mujalid mu ne mu ne xaa wa haddathana Hafs ibn Umar moom tamit ci sëriñam yi la bokk Hafs ibn Umar ibn al-Harith al-Azdi an-Namari rahimahullahu ta'ala euh, bokk ci fukkeelu tabaqa bi muy al-Hawdi Abu Umar al-Hawdi euh, rahimahullahu ta'ala di waa Basra génn àdduna ñaar téeméer rek ñaar fukk ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne qaala haddathanaa Shu'ba mu ne qaala akhbaranii Muhammad aw abdullah ibn abul mujalid manam fi nga gis ne kon sikki sak amna fi ne ndax muhammad la wala bok abdullah ibn abul mujalid wa day gis ne mom mi ngi tudd abdullah ibn abul mujalid manam kon nga gis ak njumte dafa am ci kan ci wakiya ha ci wakiya la amé euh du du ki nga xamantene mom moy euh euh ndax ndax sooba wala boog sooba dafa dafa xamul turam dëgg-dëgg maanaam loolu tam mën na ne maanaam ne sooba ci jëmmi boppam moo xamul dëgg-dëgg turam ba tax bi mu koy nettali léeg-léeg mu ne ibnu abil mujalid léeg-léeg mu ne muhammad ibnu abil mujalid léeg-léeg mu ne mu daal di wax euh, muhammad wala abdullah ibnu abil mujalid rahimahullah ndax dafa siiwee woon li nga xam ne moom mooy euh, abul ibnu abil mujalid moom la siiwee loolu moom moo tax rahimahullahu taala mu ne qaala mu ne ixtalafa wuute na abdullah ibnu shaddad ibnu lhaad ñoom wa abu burdat ñoom ñëpp ñoom ñaar ñii dañoo wuute fi salafi ci wàlluk salaf maanaam kenn ku ci nekk maanaam am gis-gis ci mbir mi nee na fa ba'athu nii ñu daal di may yabal ila ibn abi awfa muy sayyidina abdullahi ibn abi awfa radiyallahu ta'ala moom sax papam sahaaba la muy d'ailleurs moom la moom moo joxe woon azaka bi ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne allahumma salli ala ali abi awfa maanaam Abdullah ibn Abi Awfa bii la rax maanaam moom euh, radiyallahu ta'ala anhu mu mujjee génn àdduna ci Kuufa ci saxaaba yi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum mi ngi génn àdduna juróom ñett fukki at ak juróom benn aw ñu ne tamit ne juróom ñett fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam euh, radiyallahu moom tamit bokk na ci euh, moom bokkoon na fekke woon na bay'atu Ridwaan ah dund na daanaka lu xaw a jege téeméeri at moom daa xaw gudd dafa ah waaw dégg nga radiyallahu ta'ala anhu nee na bañ koy bañ ko yónnee bañ ma yónnee ci moom nee na fa sa'altuhu ma daal ko koy laaj fa qaala mu ne inna naka ñun dat kun naa nekkoon nan nusrif daan def bay assalam bi ala ahdi rasulillahi ci jamonoy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakar ak jamonoy sayidna abu bakar wa omar ak sayidna jamonoy sayidna omar radiyallahu anhuma mu ne ñii fil xin eh, fil xintati ci pepp daan nañ ko def ci pepp mooy ñoom eh, ñoom ñooy ay bleek buru ak yu mel ni ñoom wa sha'iri ak orge wa zabibi ak tan ak raisin bu wow wa tamri ak tàndarma nee na loolu daan nañ ko def nee na wa sa'altu ma laaj abza maanaam moom taabii la abdurrahman ibn abza al-xuzaayi rahimahullahu taala donte am na ñu ko dugal ci saxaaba yi radiyallahu anhu mais loolu ak xeetu njuumte la ndax li nga xam ne moom li wér moom mooy moom ci taabi'i yu mag yi la bokk mais du du saxaaba déedéet rahimahullahu euh, ta'ala euh, dégg nga moom euh, loolu moom mooy moom moom mu nee na fa qaala mu wax nee na ba ma ko laaje fa qaala misla zalika nee na daa wax ma mbir mooma daa wax kémuk loola ne nekat ah waaw dëgg la ne ne effectivement dëgg la loolu amoon na Eh, ndax moom dafa fekke jamonoy Seydina Aboubacar ak Seydina Omar radiyallahu taala anhu waaye moom du du saxaaba léegi li nga xamante ne moom la eh, donte am na ko dugal ci saxaaba yi ah léegi li nga xamante ne moom mooy eh, mbir mi bokk na ci li nga xam ne moom lay leeral léegi nag laaj bi moom mooy ana lan la duggee ci bunt bi mooy baabul salamu fi was ma'lumin bu boobaa dañ naan la am na ci xadis bi am na ci ay riwaayaat yoo xamante ne dañoo leeral ne dañoo leeral ne fii wasnil ma'lum la maanaam ci lu xam la dañ ko doon natt loolu benn la mais beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci mën a xam moom mooy ne yii xamoon nañ ni jamono yenente bi sallallahu alayhi ak jamono Seydina Abubakar ak Seydina Omar radiyallahu anhum ñoom seen jamono xamoon nañ ni yii moom de façon ci natt lañ ko daan ak ak lañ ko daan lañ ko daan jaayee voilà donc loolu moom kon day daal da ci daal di mën a dugg donte xadis bi ci jëmmi boppam leeralu ko beneen mbir bi nga xamante ne dañ ko ci jàngee tamit moom mooy ne léeg-léeg benn masala bu fekkente ne euh, euh, da nga koo laaj ku ko xam euh, léeg-léeg bu fekkente dafa am ay mbir yu la ci des say lu jël ñu ci lënt mën nga koo laaj beneen borom xam-xam maanaam kenn du ne la kenn rek ka fi moom la ñuy laaj te keneen mënuñu koo laaj déedéet loolu mbir mi du demee noonu lool moom moo tax nga gis mu laaj ko Seydina Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhuma mu daal di tontu ginnaaw ga ñu laaj ko euh, al euh, euh, abi abza rahimahullahu taala tam mu daal di tontu bi imam al buxaari rahimahullahu taala dina ko indiwaat léegi ci xadis 2244 ak 2254 imam Abu Dawud solo na ko xadis numéro 3464 ak 3466 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 4614 imam Ahmad in na ko xadis numéro 19122 ak 19396 kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñett ko solo muy imam al-Bukhari imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i amma imam eh, Muslim ak imam at ak imam Ibn Majah ñoom ñëpp solo wuñ ko te bokk na tamit ci xadis yi nga xam ne moom la imam al-Bukhari weetoo ak imaamu Muslim rahimallahu al-jami' na baabu salaam ila man laysa indahu asl baabu bunt as-salaam maanaam mooy njaayum njaayum jiital googu ilaa man ci ci ki nga xamante ne euh, laysa euh, déet euh, indahu fa moom aslun maanaam ndax maanaam moo tax mu ne assalamu ilaa ndax moom la ñuy wax almuslamu ilayhi maanaam kooku lañ koy wax ki nga xam ne moom mooy kiy jënd moom la ñuy wax almuslim wala boog almusallim loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise léegi nag alal ji ci boppam moom mooy rasu rasu maali salam amma li nga xamante ne moom mooy marchandise bi ci boppam moom mooy almuslamu fiihi maanaam kon loolu Euh, mu fii mu ne moo tax mu jëfandikoo ilaa maanaam asalamu ilaa ngi wane ni kon ci kook nit kooku la ñuy wax maanaam mooy ki kii ci war a jaay daal ki kii jaay marchandise bi moom mooy maanaam jaay bu man te ka nga xam ne lay sa déet indahu fa moom aslum cosaan bi maanaam moom mooy tey bu fekkente ne damay jaay benn marchandise marchandise bi man yoruma cosaan bi maanaam instant bi nii awma dara dara dara ci marchandise bi mais dama ko war a dem wuti di maanaam loolu mën naa ne maanaam loolu la nekk di leeral nii waaye nag euh, fii boroom xam-xam yi euh, wuute nañ ci kanam ci benn cadre ci benn mbir maanaam moom mooy tey jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñoom bariwuñ ci ay problème ñoom li leen amal solo moom mooy mbir mi mën a nekk jamono ji ñuy présenter marchandise bi loolu mën a ne loolu rek moo leen amal solo mais loolu te loolu sax ci xalabatu zanni lay ko waaye ñi nga xam ne ñooy fuqaha u xanafiyee rahmatullah alayhim ak lu ëpp ci waa Kuufa rahmatullah alayhim ñoom nanguwuñ ko ñoom dañu ne non loolu mënta nekk parce que ñoom dañ ndax tey bu fekkente ne marchandise bi cosaanu marchandise bi maanaam mbir mi ci boppam am na jamono ji maanaam tey masalan ma ne la vingt tonnes ceeb laa bëgg euh, fii maanaam ak trois mois jour pour jour trois mois dans trois mois kon vingt tonnes ceeb laa am laa bëgg ñu gis ne tonne ceeb kat bari nañ ci marché bi te xam leer na leen dina am diggante tey ba keroog muy muy muy muy muy maanaam euh, date booba di jot bu boobaa loolu kenn wuute wu ci ñëpp d'accord nañ ci ne mën naa léegi nag tey bu fekkente ne dañ naan jamono ji am na ceeb tonu ceeb bi jamono ji moom ceeb am na wala boog mais mais xam nañ ni dans trois mois des pénuries day am dootu amati du tout sax da dul sax amati ci marché bi xam naa boobaa moom mbayee yi danañ sonn mais euh, loolu moom ñaar ñaanuma ko mukk parce que mbayee yi dinañ sonn lool waaw léegi jamono jooju bu ñu waxee loolu li nga xamante ne euh, euh, bu fekkente ne mbir mi noonu la nar a demee loolu tamit day nekk loo xamante ne njaay mi day xaraam loolu tamit ñëpp d'accord nañ ci voilà matériel boo xamante ne jamono jooju mënta ne loolu ñëpp d'accord nañ ci ne dafa xaraam léegi nag mu am yeneen cas de figure beneen cas de bi ci tegu mooy ñetteel bi moom mooy ne euh, dana am jamono jooja waaye jamono ji amul loolu mooy ñetteelu cas de bi mooy tey jii nii nii nii amul mais xam nañ ni dans trois mois dana am comme masalan kuy jënd kuy jaay gerte maanaam xam ne nawet baa ngi waaj a ñëw ma daan la ah sawaay yow kat baykat nga xam naa ni boo tukki tool bu bari bu rëy nga am léegi man damay jënd ci yow gerte te xam nga bokk na ci charte yi waxoon nañ ko mooy ñu bañ a préciser ne gerte gi génnee ci tool sàngam loolu waruñu ko préciser parce que loolu xarar da ciy dugg te ak euh, euh, euh, jaay loo xamante ne xabla bu dugg salaaxiha day dugg ci mbir moom li nga xamante ne kon moo mën a nekk rek mooy dama naan la damay jënd gerte ce qui fait bu tool bi doxul yow nga dem wuti ji indil ma samay gerte tamit feneen maanaam kon loolu moo ciy am solo léegi nag bu boobaa bu ma nee la ah gerte mais man munu ma wax maanaam tey bu fekkente ne date bii ma nii amul maanaam gerte amul mais nawet baa ngi waaj dugg si gerte dana am mois de septembre par exemple mois de septembre gerte dana am ma ne la léegi damay jënd ci yow ñetti tonu gerte. xaalis baa ngi nii am nga daal di jël bu boobaa euh, ndax dagan na dagan waaw wala déet fo loolu borom xoxo bi dañ cee wute muy masala boobu donc jàppal ñetteelu cas de figure bi ñeenteelu cas de figure bi ab moom mooy am na tey gerte am na tey janvier lañ ne am na mais day day day ñàkk par exemple mois de mai dootul amati septembre rek lay amaat mais man gerte gi septembre laa ko soxla mooy ci diggante bi am na ci jamono ji am na jamono ji nga xamante ne moom la nar a moom nga moo nar a présenté mais ci diggante bi dana xeet dana ci dana dana ñàkk loolu tamit foofu tamit borom xam bi dañ cee wuute ci ñaari cas de figure yu mujj yi nag foofu la jumhur wuute ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullah alayhim ndax xanafiye yi dañ ne mënta ne parce que ñoom tam dafa bokk ci charte bi ñuy tëral ci ci bay au salam mooy possibilité mu am lépp mën a am parce que ñoom dañoo jàpp ne tey bay salam tey nit ki su ko jël defee ba pare génn àdduna mbir mi maanaam ci bi mu génnee àdduna noonu xam nga ndonoy dañuy soxla seen alal maanaam dañoo war a indi marchandise bi tey maanaam ñoom loolu dafa bokk ci loolu loolu masala bi ñoom noonu lañ ko gisee loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne bu naree yàqu ci diggante bi du baax maanaam bu naree ñàkk ci diggante bi rek dootul baaxati voilà mais wax jooju dese naa dëgër parce que ndono yi après mën nañ leen koo jox moment boobu tout simplement voilà donc euh, euh, kon bi nga xam ne mooy li gën a wér te d'ailleurs sax loolu moom mooy bokku na ci sensé parce que lool su amuloon lu bëri bëri lu dugg ci salam dootu ci mën a dugg ci maanaam su doon ne faaw daa war a présent daa war a am déedéet tey loolu moom moo tax tey may soxla su may defar ay modèles yu bees mu mën ko def d'ailleurs bu boobaa kon istisna dootul mën a nekk mais pourtant xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom ci lu dul xiyaas maanaam ñoom daganal nañ istisna maanaam mooy artisanerie maanaam dama lay defaral dama dama dama ñëw dama bëggoon ha yow binga bi nga yor de ba neex na ma bëggoon naa nga nga nga defar ma ci ngay tayeer nga ne ma dinaa la ko ñawal boo ma ko jawalee loolu bu boobaa istisna la tudd ma fay la voilà mais bu boobaa mën naa laa fay léegi nga doog koo defar nga dem wuti ji say tisi wut say kii dem dem ñaw et cetera mën naa xaar ba nga defar koo pare ma fay la maanaam loolu foofu salam alors que salam tey jii nga ma ko war a jox voilà tey tey tey nga ma ko war jox voilà am na tamit beneen masala boo xamante ne mënoon nañ ko wax ci suñu xadis euh, bi weesu moom mooy fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim foofu dañ faa wuute jumhur tamit ndax ñoom dañoo jàpp ne euh, njëg gi maanaam alal gi mën naa ko joxe fii ak ñetti fan ndax maanaam fii ñetti fan ndax ñoom dañ ne maa qaaraba ma ya'khudhu hukma qaa'ida boobu lañ jëfandikoo lépp lu jege mbir rek day yor àtteem maanaam moom mooy obligé wu ma tey bu ñu signé contrat bi contrat de vente bi paiement bi ma def ko paiement pay ma droit de rétraction après trois jours vie trois jours parce que lu parce que amna droit baña fay fi 3 trois jours voilà alors que ñeneen ñi luñ ko ñom droit de rétraction boobu daganul ci ñom voilà dégg lolu tamit benen bir la bo xamantene euh masala la bo xamantene bu ci am solo la legui nak mu am sax benen masala bo xamantene tamit man na bàyyi xel moom mooy tey su fekkente ne damaa jaay dama la dama jënd bir mi mais man benn parti rek la la jox ci pay gi manam bobu nu muy demee maanaam man joxe bu pay bu boobaa salam gi da yàqu ci li ci li ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax rahmatullah alayhi mooy ne salam gi eh, day yàqu eh, ci benn partie maanaam ci partie bi nga xam ne moom nga ma fayagul mais bu dee ci ñetti fan yi la dina dagan ci maaliki yi rahmatullah alayhi mais ci sino li bi nga ma jox bi ma la jox lu tollook loolu lu askanante ak loolu mooy prorata prorata voilà prorata boobu da moom mooy baax alors que bu dee fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom par contre prorata du ci am salam lépp ngay joxe boo joxewul benn partie bi salam bi day yàqu voilà te loolu tamit en tout cas texte yi loolu lañu loolu lañu dëgëral wallahu a'lam voilà kon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi li haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy at-Tabuzaki mu ne qaala haddathana عبد الواحد mooy ibnu Ziyad al-Abdi mu ne qaala haddasanaa ash-Shaybaani te mooy Souleymane ibnu Fayruz ash-Shaybaani Abu Ishaq di daaxantalam rahimahullahu taala tamit moom it gis nañ ko lu bari mu ne qaala haddasanaa Muhammad ibnu Abil Mujalid voilà moom da nga gis ne Muhammad la waxtaan ibnu Abil Mujalid kon day nekk ne waa ji dafa dañ dañ koy wax am na ñu koy tuddee Muhammad donte Abdullah la tudd mais dañ koy woowee. muhammad mu ne no qaala mu ne baasani abdullah ibn baasani yabal na ma abdullah ibn shaddad day nettali li mu waxoon rek wa abu burdata ila abdullah ibn abi awfa maam ci abu abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhuma fa qaala ñu ne salhu laaj ko hal ndax kaana nekkoon na asxaabu nabi àndandoo yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi ahdi nabi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam yuslifuuna daan nañ def bay u salaf fil hinta ci pepp قال عبد الله مولى ابن ابي اوفا رضي الله عنه ننا كنا نكون نسلف دي جف نجاي موغا خامني موي نجاي ا آه، آه، سلف نبيتا مانام بايكات اهل الشام وا شام في الحنت كي بيب والشعيره اك اورج والزيت اك ديو فوالا كون في موم دافني زبيبي في مو زيت موي ديو في كايلين مانام بو فكنتي ديو kon bu boobaa tamit dañuy daal li ci yeneen kii yëpp dañ ci daal di duggaale ay graisse ak ay diwlin ay euh, parce que zeyt mooy diwu euh, kii bi euh, non zeytun olive wala léegi diw yeneen diw yëpp nag dañ ci daal di duggaale suñu diwlin yeeg suñu kii yëpp mën nañ koo def kon bay o salam mais il mu nekk lan fii kay lin maalumin ci natt gu ñu xam xam nga masalan diw buñ ko peese dañ koy natt loolu masalan ilaa ajalim maalumin ci jamono ba ci dëxale gu ñu xam xultu ma ne ko ilaa man maanaam ci kan la nekkoon kaana la nekkoon as ilaa man ndax ci ki nga xamante ne kaana nekkoon na fa moom aslu gu cosaanam indahu fa moom ndax ki nga xamante ne maanaam cosaanu mbir mi ci boppam alal bi mi ngi ko yoroon comme par exemple jiwu bi wala yu mel noon qaala mu ne maakun na ñu nekkuñu woon nas alahum di leen laaj an zalika ci loolu kon loolu day dëgëral ne li nga xam ne moom mooy li jumhur wax mooy li gën a wér par rapport ak li xanafi yi wax rahmatullah lii moom da koy dëgëral dégg nga nee na suma topp baasaani ñu yabalaat ma ilaa abdurrahman ibn abi ibn abza nee na rahimahullah radiya anhu fa sa'altuhu ma laaj ko voilà fa qaala mu ne kaana nekkoon na asxaabu nabii àndandoo yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ne yuslifuuna daan nañ def njaayum salaf boobu ala ahdi nabii ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam walam nas alhum walam nas alahu alhum te daanuñu leen laaj alahum ndax amoon nañu xarsul am euh, euh, am am maanaam mooy mooy mooy tool bu ñu bay am laa waaw wala déet maanaam moo loolu moom mooy yow obligé woo sax nekk baykat maanaam pour mën ko def <laughs> voilà yow mënal rek voilà volonté économique bi jeex na voilà mooy danga ñëw ñuy appel d'offre marché baa ngi nii nga ñëw ñu jox la xaalis bi nga dem <laughs> voilà sinon après sinon day tudd na wala tadwir voilà gis nga mooy wala comme wala ni ñuy def wala dama bëgg placer architecte bi wan ma kii et cetera ma jox ko xaalis mu dem loolu tadwir la wala loolu tadwir la voilà maanaam yow da ngay ñëw damay def appel d'offre après nga ñëw Euh, bu boba man ma lay man ma lay jox lepp li nga xamantene mo nga soxla pour pour liguey bi voilà alors que istisna yow yaay defar ba pare man ma lay doga fay manam yow yaay defar yaay jënd lepp yaay topato lepp alors que fi man ma damay mëna indi matériel bi voilà comme dama lay mëna jox xaalis bi voilà ci tadwir lool mo len wutale ce qui fait que tadwir day mëna yor ci yenn volets yi istisna ci yenen volets mu yor attey ijaara mooy salarié voilà donc voilà mais loolu da gis dëkk yu bari noonu la ñuy def ci ci bu ñuy tabax seen chantier yeeg seen affaire voilà loolu la ñuy wax dégg nga moom dafa nuroog salam te du salam voilà mais ñoo bokk atte mooy ci dagan voilà dégg nga mu ne euh, <laughs> euh, haddathana euh, ishaq mu ibnu shahayni rahimahullahu taala alwasiti Euh, bokk ci fukkeelu tabaqa bi génn àdduna ginnaaw deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu Xaalid ibnu Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Yazid euh, Abul Haysam dakantalam wala boog Abu Muhammad al-Wasiti at-Tahhan rahimahullah bokk ci juróom-ñetteelu tabaqa bi gane àdduna la tax fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi génn àdduna téeméer la tax juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay salaatu euh, wassalaam mu عن الشيباني موم لا نجيس لغي موم موي سليمان ابن فيروز الشيباني من عن محمد ابن ابي مجالد بهذا تي وحدي مام محمد ابن ابي مجالد من وقال من فنسلفهم من بو كو دافي ني دادي لين دي ني جايانتك نيوم جاي سلام في الحنطتي تي بيب والشعير اك وقال عبد الله ابن الوليد moy abdullah ibn walid ibn maymun al-qurashi rahimahullahu taala daqantam nek abu muhammad muy al-adani rahimahullahu taala di wa makka mom mi ngi bok ci fukelu tabaqa bi rahimahullahu taala mom mune an sufyan moy ibn uyayna maanaam fi da gis imam al-bukhari daf ko taaliq dafa taaliq hadith bi sufyan as thawri waaw ibnu sa'id ibnu masruq as-sawri naam taala al-kufi من قال حدثنا الشيباني مولى سليمان بن فيروس من وقال موم واخ والزيت موم تامت والزيت لا واخ واخو والزبيب فوالا كون دا نيو ني آه، آه، كون ني دا نيو والزيت ني نيو والزبيب من قال حدثنا قتيبه مولى ابن قال حدثنا جرير مي مولى آه، ابن عبد الحميد ابن جرير الضبي رحمه الله تعالى gane adna fukel temer ak fukel wat génn adna temer ak juroom ñet fukkat ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa sallam ray Rayy rahimahullahu ta'ala mune ne an ash-Shaybani mooy Sulaymaan rahimahullahu ta'ala mune wa qala wa fil hintati wash sha'ir waz-zabibi fil hintati ci pep wash-sha'iri ak orge bi waz-zabibi ak raisin bu manam raisin sec kon da ngay gis ne ñoom ñi dañoo wute ci seen ay riwaya bu fekkente ne kon mais ñoom ñëpp ci Sulaymaan ibn Fayruz ash-Shaybaani lañ lañ jëlee mais ñii dañuy wax zabib ñii di wax ah az-Zayd mais boo xoolee Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri moom az-Zaytu la wax moom ak Ishaq ibn Shaahin moom wala ba Xaalid ibn Abdullah maanaam Xaalid ibn Abdullah moom tamit az-Zaytu la wax naka noonu. Euh, Abdul Wahid moom tamit az-zaytu la wax mais bu ñu xoolee ci riwaaya yi nga xamante ne moom mooy abul mujalid yi jaara ci ibnu abil mujalid bopp yépp ñoom zabib lañ wax hmm? wala ak jarir ñoom tamit ak zabib lañ wax kon day mel ne kon léeg-léeg dañ koy da koy nettalee nii léeg-léeg mu nettalee ko ne kon loolu Euh, maanaam euh, ibnu abil mujalid moom mooy nettali maanaam moom mooy def parfois mu nettalee lii léeg-léeg mu nettalee nele kon loolu moom moo indi wuute gi euh, voilà xadis bi gisoon nañ ko ci deux mille deux cent quarante deux dina ko indiwaat ci deux mille deux cent cinquante quatre comme niñ ko gisee woon waa asxaabu kutubu sitta ñett rek ko ci solo muy imaam al Buxaari imaam Abu Dawuda ak imaam an-Nasaa'i amma imam muslim imam at-tirmidhi ak imam ibn maaja ñoom ñëpp kenn solowuñ ko ci rahimallahu al-jamii mu ne qaala haddathana adam muy ibn abi iyas moom waa asxaabu kutubu sitta solo nañ ay xadisam maanaam ba mu des imam muslim ak imam abu dawuda ñoom ñaar rek ñoom ñoo solowul xadisam mu ne qaala haddathana shuba muy ibn al-hajjaj qaala axbarana amr moom mooy ibn murra amr ibn murra ibn abdullah ibn tariq ibn al-haris al-Jumali rahimahullahu taala al-Muradi di waa Kuufa al-A'ma tamit mu silmaxa woon tamit bokk ci juróom-ñeelu tabaqa bi nekkoon Kuufa génn àdduna te jun téeméer ak fukk ak juróom-ñett bokk ci siqaat yu mag yi ñi gën a nekk siqa ci nga xamante ne ci waa ci voilà ci ci ci waa Kuufa rahimahullah ak d'ailleurs ci tabaqa bi mu bokk mu ne qaala mu ne qaala sami'tu Abal Bakhtari at-Ta'i muy euh, Sa'id ibn Fayruz la tudd donc Abul Bakhtari Abul Bakhtari euh, at-Ta'i ta'ala euh, nekk waa Kufa tamit rahimahullahu ta'ala bokk ci ñetteelu tabaxa bi mi ngi génn àdduna juróom-ñetteel fukkeet ak ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ngi ci kutubu sitta no qaala sa'altu laaj naa ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu an salami ci njaayum salam fi naxli ci tàndarma maanaam garab tàmbara mu ne qaala mu ne naxan nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere an bay en naxli ci njaayum tàndarma xattaa mbete yuukalu ñuy mën a lekke min hu ci moom wa xattaa ak mbete yuusanu ñu koy mën a màndaxee fa qaala mu wax rajul benn waaye daan ne mais wa ayu shay'in kon waa ban mbir yuusanu la la ñu mën a natt maanaam mooy euh, lii moom mooy qabla buduwi salaahiha tey bu doon dama koy jaay mënuma koo jaaye ci cas de figure boobu qaala rajulun benn waaye daal di wax ilaa waajoo xam ne ilaa jaanibihi ci wetam la nekkoon mu ne xattaa yuhraza mbete ñu mën koo natt maanaam tey moom mooy même bu fekkente ne fii li muy wax li mu bëgg a leeral fii mooy même bu fekkente ne lu ñuy natt la ñuy xool bu ñuy natt tamit mën nañ ko natt de vue rek mooy mooy mooy estimation voilà mooy estimation mën na ci am ci lu mel noonu voilà mais nag mu am benn mbir mu am solo mooy li tax imam al Bukhari indi xadis bi manam moy ne day wane ne euh li lañ tere mais lé téré terewuñ ko salam bi lële terewuñ ko te lolu dina gëna lér leer mu ne wa qaala Muaz te mooy ibnu Muaz al Ambari rahimahullahu taala Muaz ibn Muaz al Ambari muy abul musanna bokk ci juróom-ñeenteelu tabaqa bi rahimahullahu taala gën a àdduna ak fukk ak juróom-ñeent génn àdduna téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Basra rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba an Amr ah annahu qaala qaala Abul Bakhtari sami'tu ne dégg naa Ibn Abbas anhuma maanaam kon mu jokkal xadis bi yëpp voilà lépp amul benn an-an mu ne radiyallahu anhuma mu ne naha nabiyyu mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam tere na mislahu kémug loola maanaam moom mooy tàndarma goo xamante ne eh, dan dan maanaam garabu tàndarma bu ñuy jaay fekk mbir yaa ngi ci dàtt yi déedéet maanaam loolu li muy tekki kon moom mooy bu xësee ba nekk ci date bi da koy jaay tey léegi nga koy jaay doo ko jaay ci lan mënatoo koo jaay salaam loolu moom mooy liy wutale baabu maanaam mooy bay yam laa ko mooy tey marchandise su su teggoo fii loolu moo tax euh, fuqaha Shafi'i rahmatullah li tax jumhur seen wax di gën a dëgër ci wuute gi ñu wuute ndax maanaam ajal bi mën na maanaam ndax jaay xaal xaalan léegi nii mën na ne loolu Euh, fii li tax junguur di wute di di leen leen seen wax di gën a dëgër mooy loolu mooy ne euh, parce que bu fi mbir mi xësee ba nekk ni dootuñu ko jaayee selam dañ koy jaay maanaam jaay bu normal mu mutlaq lay daal di mujj doon te bu boobaa bay omalaayam lékk du mën na ne maanaam marchandise bi su fi nekkee nii teew dootul jarati ñuy salam maanaam mënuma toog naan la kaay dañuy salaam ci loo xamante ne marchandise baa ngi nii voilà te bay o salam li tax ñu yonal ko day daal di tëb mooy jariñu gi man en tant que dama yor sama alal mais yoruma mais bëgg na marchandise mais dama ko bëgg dans un délai délai bu gëna gudd bu ko défé yow nga mën ma koo indil ci délai bobu mais nga profito comme yow euh, naka lañ wax acteur économique nga mën ko indi nga mën nga mën ko produire indil ko wala boog nga ma dem mën ko wutu récolter ko indi ko mais man ma profité ci njëg gi wàññeeku gi muy wàññeeku par rapport ak su doon dama koy jënd teew mi teew yow nga gagné sur le fait que da ngay am sa capital boo mën a dem liggéeyee ji léegi indi maanaam loolu moo tax mais tey bu du loolu ban njariñ lay am amati ñuy def bay o salam ba pare comme niñ ko gisee woon bay o maalaayam lëg xarar bi ciy dugg ak xeet yu bari yi nga xamante ne moom moo ci dugg te loolu tamit leeroon nag comme ci hadith sayyidina Hakim ibn Hizam bi radiyallahu anhu laa tabe maa laysa indaka bul jaay loo xam ne moom ko nekk fi yow kon ñu jaari yam foofu incha allahu taala wallahu taala alam wa